jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mu nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara bu kullu amin wa antum bi xayr tabaarakallaahu sant yàlla bu baax baax a baax mi santaane jaamu gu tudd aj ujaaj yi demoon defi ko ba yàlla baaxe leen ñu matal lépp bu nu ca noppee dellusiwaat ci seenum réew moo tax mu yëkk ci tàmb bu tudd awdatul xujjaaji ilal fekkee jub na awdatul xujjaaji ilal bilaad nu gis ne kenn ku ne ci ñun bi mu ñëwee war na fee fekk menn zeynul abidin war na fee fekk menn zeynul abidin zeynul abidin mooy ki nga fekk bi nga ajee ba ñëw mu nekk sa kilifa mu nekkee sa kilifa ci wàllu diine bi nga ñibbisee mu laaj la sa aj gi waaw bi nga ñibbisee mu laaj la sa aj gi nga wax ko yi nga def mu wax la walla mu laaj la yi nga def lan la def ci yow yi nga def lan la def ci yow <clears throat> Zinul Abidin nun la toppee dongom bi te law ñu doon ko topp noog yéen xam nga tey su nogay demoon màkk bu dellusee su ma fi fekkoon ma nekk am Zinul Abidin ci moom <laughs> coow dana bari lool waaw ndax nogay mën naa dem màkk waaye aju du ko yomb ndax mën naa dem topp ci nit ñi luñ def mu def ko bu ñu bisee jëndu kaalaam toog waaye Zeynul Abidin loolu la doon bañal taalibe bi waaye loolu doon bañal taalibe yépp ndax wax ja na ba agsi fii ci biladu senegaal waaw lu am solo la laaj nit ki waaw laaj laa mel nii suñu mbokkum daara yàlla na ko yàlla yokk wér Oustaz Ahmed Dame Ligue des imams Oustaz Ahmed Dame nee na bu fekkoon bu ñu gàmmujee jee dangay ñëw jam ñaajo nee na da ngay ñëw jam ñaajo di xaar oto yi oto bu ñëw nga wàcce leen laaj leen naka gàmm gi nee tontu yi ngay jot rekk tabarkàlla rixlatu salaam ilal baladil amin tukki boobu tukki jàmm la ku aji màkk ba ñëw dem ci dëkk boo xam ne mooy albaladul amin soo dikkee ci sëm réew duutoo def luy juru ay duutoo ko wax duutoo def luy juru ay duutoo ko wax waaw ba tukkee aji màkk ba ñëw sa làmmiñ dootul wax lu juru ay say cër dootul def lu juru ay wax naa ko barki démb nag ci benn conférence ma ne bar sunu baram sunu yonent bi sallallahu alayhi wa daf nu jàngal loo xam ne euh, ku moytuwul whatsapp mu def loo la ko ku moytuwul whatsapp mu def la ko ndax dafa wax ne al muslimu man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi jullit jullit mooy koo xam ne jullit yépp mucc nañ ci loxoom mucc ciw làmmiñam walla mucc nañ ciw làmmiñam mucc cib loxoom whatsapp dafa am benn benn tomb bu verte def flèche bu weex nun la am boo jàppee sa loxo ci baaraam bi ci tomb bu verte boobu def flèche loo wax mu enregistré la ko boo teggee sa loxo mu yóbbul la la nga enregistré bu fekkee da ko sant ne ko defal ma ko ci stati bi defal ma ko ci pénc wi ndax nëbbuma ko kenn mu defal la ko ci pénc ma soo ko beree nag yónnee ko kenn mu yët ko kook nit ñi tàmbali di di xoloo di xoloo whatsapp di ko yónni xoloo ak i dàggasante mu leen ko yóbbul waaw nit ñi di jël whatsapp di ko yónni mu leen di yóbbul seeni xuloo di leen di yóbbul seeni dàggasante allahu akbar ana min lisaanihi ana wa ki nga koy jox muslim la muccul ci saw làmmiñ muccul ci sab loxo te whatsapp mi ngi la ciy dimbale waaw léeg-léeg mu mu yónnee la moom whatsapp loo xam ne toog fa di ko déglu sax li mu jël ci sa temps boo jàngoon masalikul jinaan te dégg ko doon nangu mu jël sa temps boobu boo jàngoon fala budda min shakwa doon nangu mu jël temps boobu boo jàngoon dunduk mag ñi ci réew mi doon nangu mu jël sa temps boobu waaye boo jàngoon wala asr doon nangu mu jël sa temps boobu awdatul bilaadi ngeen baal ma awdatul xujjaaji ilal kon ki dem màkk ba ñibbisi fu demoon ma nga demoon il il uh, haazal baladil la demoon nga xam ne ku ñibbisi rek sa kuddu jàmm rekk la war di ràcc ndax xamoo li nga dese ñaata la xool rekk réew mi ñi fi ñi fi wàccub liggéey jamono yi ngeen xalaatit juróom-ñaari nit ña fa des ndeysaan hmm? waaw te kenn xamul sa bos kañ la kenn xamu ko waaw waxtu bi daal duñu ñibbisi rek nekk ci mbirum sunu sunu sunu jarbaat ba Adja Zeynab Fall kenn du ko fàtte ndax mi ngi ci réseaux sociaux yi ba fi ñu toog njàngale ma ne ci ak waxtaan ya mbokk bu ujaa ñibbisee seen kuddu yëpp jàmm la war a ràcc waaw ndax bi yàllay sant Ibrahima mu liggéey liggéey ba hmm? da ko liggéey ba noppi daal di ñaan boroomam ne ko rabbi ij'al haadha al balad amina wa junubni wa baniya an na'budal asnaam yàlla mu naa mën a ko liggéey naa ba noppi maa ngi nii di raxasu waaw yóbbu samay peel ak samay pikk ak desitu ciment yeeg yooyu <laughs> ni ko maa ngi lay ñaan dëkk biir mu am sécurité allahu akbar mu am sécurité mu tax boo ñëwee ci kaaba gi di julli ji nga gis noonu ni ñuy sécuriser nit ñi yow mën na laa métti sax léeg-léeg en tant que ku bëgg a dem ca jàkk ja waaye bu ñu ko defutoon adduna tukki da nga ñëw fekk benn bunt ñu baare ko tëj ko ne leen dem leen dugg ci buntu bële nga dugg ci buntu bële ñu tëj bii tijji bële tëj bii tijji bële def ay masa shubhu masajid ci biir ci biir xorom bi ñu ko ba mu fees ñu tëj boobu duyaat beneen bu génn jotee fu neex waay génne waaw waaw moo tax ni ñu sécuriser yëf yooyu am amaam solo la bokk na ci kuy dugg ci màkk ñu xam yaay kan ban group nga àndal fu ngeen di dal kañ ngeen di ñibbi waaw yow yaay kan ban group nga àndal fan ngeen dal kañ ngeen di ñibbi moo tax boo jógee ma Madina rek ñu jël say passeport boo agsee Madina kon ñu jël say pass sa passeport boole passeport yi yëpp def ci mbuus dem yëti euh, samu taw tawwif bu fa jóge jotee mu tawif ba joxe passeport ya trier ko wax leen yan kaar ngeen di jël ak ban heure ngeen fiy jóge passeport yooyu ñu ngàbb ko ba dugg ba dugg Makka ñu joxe ko fenn ñooña xam ne ah kon kat kii mooy diw mu ñoom diw la àndal barab sàngam lañ jóge barab sàngam la ñuy dal dat sàngam la ñuy ñibbi ñu jël mbus googu jox ko gone mu woo mat oto ba ba ci otel ba ne leen fii ngeen dal allahu akbar loolu sax war nañ ci jànge ñun ñi dëkke ci réew mu mel ni Sénégal ab frontière ab frontière warta ubbeeku warta yaraax warta doon loolu ku neex mu dugg ci kuy dugg ci war na laa laaj laaj yi waa Màkka di laaj ujaaj yi yow yaay kan ñan nga àndal fan ngeen dal kañ ngeen di ñibbi loolu mooy sécuriser aj ji tabarkalla yàlla na yàlla fay leen waaw sonn nañ ca lool tabarkalla ñoom waa Makka mu ne ko am na geneen ñaan gu ma la bëgg a ñaan mooy wajunub nii wa bani an abdul asnam kon ujaaj bi su déggee laay jooju ca sóortu ibrahim bu ñibbisee lépp lu xi lu lu xeetoo ci ibadatul asnam mu bàyyi ko te mooy jaamuy xërëm lépp lu xeetoo ci ibadul asnaam ker bu mu jógee màkka ker la koy bàyyi lépp lu xeetoog jaamu xiram allahu akbar lépp lu xeetoog jaamu ludul yàlla wala jaamu kudul yàlla mbokk yi ujaaj bi bu ñibbisee te jàng alquran albaqara mu jàng fa kero bi yàlla yeb yoon wooxee almalaayika ñoom ñépp jox leen benn information bu rëy bu musta dégg fees seeni nopp mooy inni jaailun fil ardi xalifa inni jaailun fil ardi xalifa aajoju boo ko déggee tem xewoon ca jamono yu yàgg ya boo ñibbisee ca aj ga da yëg ne lu jiitu aj gi aj gi ak ginnaaw aj gi yow da nekk xalifatullahi fil ard hmm? waaw inni jaañ fil ardi xalifa nga yëg ne boo dee góor bokk nga boo dee jigéen bokk nga waaw boo dee góor xalifa waaye kere ba ko borom bi waxee te malaaka yi doon ñu bëgg jàmm te xam ne suuf waa suuf jàmm rekk leen jig ñu am xalaat buñ xalaat ci yàlla indi fi kok day wuuteeg ñoom ndax ñoom boroom bi daf leen bind waaye bindalu leen bànneex daf leen bindal xel waaye bindalu leen bànneex mu bind bàyyi may fas ya xar ya nag ya ak bëy yàlla bind leen bindal leen bànneex te bindalu leen xel bi yàlla bindee nit nag teraanga yem ko defal tax mu bindal ko bànneex bindal ko xel malaaka yi xel képp xar yi bànneex képp nit ñi bànneex ak xel allahu akbar waaw malaaka yëg ne ki ñu mooñal bànneex ak xel bu góor góor góorgóorluwut ci yàq lay dëkk ndax bànneex day bëre moo xel di def di def campagne électorale bànneex ak xel ku ci nekk bëgg a nekk président de la république république ah waaw tànk yeeg loxo yeeg cër yeeg yëpp ñoo ñooy peuple bi <laughs> waaw tànk yeeg loxo yeeg bët yeeg nopp yeeg lépp ñooy peuple bi waaw léegi campagne électorale day am élection day am benn ñu fal xel maa ñu fal bànneex allahu akbar mbokk yi malaaka yi seen tontu li bi ñu yëgee loolu ne xel ak bànneex ñi ngi def campagne électorale ñu xam ne nit mën naa def faiblesse gu tax bànneex gañe élection yi àdduna tukki ndax ba bànneex gañe élection yi mooy nekk président de la république mooy dëkk palais waaw mooy sant bët li muy xool di ko sant nopp li muy dëgg di sant làmmiñ li muy wax di sant loxo li muy def di sant tànk li muy def ndax mooy président mooy chef de l'état allahu waaye su fekkee xel moo gañee élection yi xel bu gañee élection yi moom dafa démocrate waaw ku bëri démocratie la moom xel moo tax danaan moom du gouverner moom toog képp déedéet day delloo kàddu gi euh, day delloo kàddu gi peuple bi wax leen nag ñun ñëpp nañu ànd ñu wut kilifa gunu boole yilif soo seetloo réewum Iran day am président mais kilifa googu day am boo demee fii ci Israël tam dañ koy am boo demee euh, fële ca euh, Iran mu lañ tuddee euh, faqir faqidu du umma wala yu mel noonu waaw waaw wilayatul faqih laa bëgg a wax ngeen baal ma wilayatul faqih kon nit bu góorloo ba xelam gañe élection yi ginnaaw xel xalaat lay jariñ day wax ne kon man kat su ma gouverner mën naa am du ma dem mu ne ñu ne ko nooy def mu ne damay damay wut ku ñuy wax wax yu waaw génn kilifa gu tudd wax yu moomu yonent bi moo ko fi indi dégg kon boo seetloo xaat xel li muy bëgg a moom du dem moom dong day wuti ku ko jàppale mu làqu ci lu ñu tuddee euh, lu ñu tuddee euh, waxyu mu di ko gunge ndax mu yu ku mu ommat fa ngay jaar foofa la ku ci ommatuwut nag mënoo dem looloo jur malaaka yi ne sunu borom atajalu fiiha man yusidu fiiha wa yasfiku dima wa nahnu nu nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak waaw yàlla danga yóbbu ci kaw suuf koo xam ne mën naa yàq mën naa tur deret hmm, waaw ndax da nga mën a yàq mën a tur deret ëllëg ci biir muy tur deret ak yàq tee nga noo yebal tee nga noo wàcc ñu nekk sa xalifa su ko defee duñ la def loolu naqari ndax ñun nu sabbixu bi hamdika nun nu xaddisu lak allahu akbar mbokk yi awdatul xujaaji ilal bilaad ku del si sam réew sa kuddu jàmm rekk la war di ràcc saw làmmiñ jàmm rekk la di wax sam xel jàmm rekk la war di xalaat nga bëgganteeg képp koo xam ne kii yéen a bokk lu ngeen bëgg boo ko rawee ak bu la rawee waaye yéen a bokk lu ngeen bëgg ki nga xam ne yéen a bokk lu ngeen bëgg nga yëg ne ginnaaw yéen a bokk lu ngeen bëgg ànd leen rekk tabarkal sa kuddu ràcc ci jàmm ku dem ràcc ci jàmm nga bàyyi xel ci eh, alayhi salaatu salaam jàngale kër boobu am jàngaleem for lool te rëy sallallahu alayhi wa sallam na ko yàlla fayal waaw fayal nu it sunu mag ñi nga xam ne loolu yonent bi indi non ñoom ñoo kër kër yi jaay seen temps jaay seenu jot ban jot ci yal yàlla fayal ñu leen jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ak seen fi war a jëkk tey jotaay bi bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ci sunu jotaay boobu di am lundi di am mardi di tàmbali 8 heures di jeex 10 heures 88 628